gannaaw ba nu leen na déwénatee si tabaski gi nu bàyyi di leen baalu àq si gëji jokko bi <clears throat> nu yéene rek tey partage ak yéen benn naafi la naafi la boo xam ne naafi la buy maye ijaaba la ijaaba nag garaat la boo xam ne foo ne allahuma rek suñu borom ne la labbayka mooy foo tàllalee loxo boroom bi jalla jalaaluhu ñaan ko yàlla nangul la defe naa loolu du lu ndaw muy naafila boo xam ne heure bi si gën mooy diggante timis ak gee naafila bi ñaari ràkk lay doon rakk bu njëkk bi juróom-ñaari fatiha def juróom ñaareelu rakk bi gannaaw fatiha nga def juróom-ñaari qul huwallahu ahad muy suratul ixlaas boo sëlmalee dangay ngay sujjoot jàng rabbi laa tasarni fardan wa anta xayrul waarisina rabbi laa tasarni fardan wante xayrul waarisiin juróom-ñaari yoon moom nga koy def su ko defee nga siggi tàllal say loxo borom bi jalla jalaaluhu lii naafila la boo xam ne képp ku koy saxoo diggante timis ak gee bépp aajo boo ñaan sunu borom sunu borom dana la kuru sa gàntal sunu borom mi dana la may ngay kuy am ijaaba ngay kuy am leeru diine ngay kunu warmaal tamit kon mbokk yi naafila boobu lañ doon partage ak yéen te wasalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakatuhu